yëkkati naa day kàddu ndigal lu ma alsaan ngay jox dama naa ko santal kilifa yi fi teew yëpp di wax kontaan na bu baax baax a baax di ko ñaanal yàlla taxaw ko bu baax ndax tonton Souleymane Gueye li wax ci alsaan ak papaam bu baax bi di ñun dañ ci fekk lu bari ndax alsaan nii yaakaar naa ñun ñëpp ci kër gi la ñu nekkoon ak moom depuis 2003 jàpp 2004 ñu ànd ci ànd bu rafet dara mu ko ñaaw wax dëgg yàlla mu jàngal ñu aar lépp loo xamante ni nii aar la ci rek moo ko def ci mu tette ñu nag jàngal ñu lu bari man dama naan fu ma taxaw ci àdduna dama naan lu nekk ci man ci aar alsaan bi moo ko def ci man mu bëgg ma loolu fonk ma ma bokk ci kër gi kon alsaan moom leen sant bu baax di leen ñaanal Tanor yàlla bàyyi seen fan wéral seen cër di sant képp koo xamante ni teew nga ci bis bi alsaan moom nit ku ñëpp la nit ku baax la nit ku yaru du xuloo du xeex loolu la ko ñëpp xamal kon alsaan ñoom lay ñaanal yàlla la fa la cat bi yal jël Euh, yal na jël ki nga xamante ni moom lañ ko tuddee muy soxna aan yàlla xare ko àjjana ci barke Seydina Muhammad waaye alsaan dafa maa yóbbante ne naa ko santal ki nga xamante ni nii nit ku baax muy jigéen ju baax jigéen seen jigéen ju xam boppam da nga xamante ni macha allah alsaan ci moom la nekk di liggéey muy njaatigeem di patron bi léppam muy soxna Zeynab Kalaara muy madame Guèye moo ngi nee toog jóge ba Dakar Alsaan ci ay loxoom la nekk di liggéey mu fonk ko lool jàppal ko boppam bëggal ko boppam Alsaan daf ma ne lépp loo ma waxal ci madame Guèye ci lu baax doyul jox ko ko cërëm xam nga ci doon moom lay sant la ñaanal di wax kontaan na ci yow bu baax a baax ci teew bi nga teew ànd ak sa délégation wax dëgg yàlla nit ku baax la man bi may liggéey ak yow alsaan sax liggéeyul ak yow damaa yàlla alsaan bu fa ñëwee man nii bokk naa ci ñi ko fa tedd nga jàpp ko nag comme ni nga jàppee seetal ñu teraanga seetal ñu jàmm ak salaam mosoo yëkkati baat bu ñaaw teg ci ñun ngay référence la ci réew mi kon Zeynab alsaan moom lay sant bu baax di la gërëm bu baax a baax a baax nit ku baax la daal di Serigne Babacar li nga xamante ni nii moom nga mébét ci alsaan yal na ko suñu borom wattal kon kontaan nañ a ci li nga xamante ni mooy tonton mooy président Arco Thiès yëpp moom it teew na moom it toog muy général bi moom moo fi teewal artiste comédien yëpp kon alxuraan si biir ñoo ngi lay ñaanal yàlla la fa la naa moom fu ne kon tonton la gërëm kàddu yu gudd na waaye da doon kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp gudd fan ak wér di leen wax

waaw loolu comme tuddul nit ba pare ñu jëm tudd nga wax waaw il faut ñu yëkkati waaw man moom léegi tëb asalaamaaleykum mbokk yi. ñoo demee nii maa leen di yéen ñëpp ku si nekk turam ak santam. tur bi nag dañ koy yëkkati rek mais tuddoon nañ ko ba pare. Alsaan tuddee na liir bi maamam soxna Anna Camara. rek. Assane tudd na doom ji soxna Anna Camara soxna Anna Camara maamam la moo ko yar pratiquement mais j'ai j'ai vraiment d'émotion dans ma voix mais il faut moo wax ci Assane parce que turandoo bi lii képp ku Anna Camara jur képp kuy doomu Anna Camara ak képp kuy sëbu Anna Camara sa xol seetu nit kontaan nit Assane nag wax ci moom yomb na ndax xale bu baax la xale bu yaru la xale bu yaatu la xale bu xajoo ñëpp alsaan njëlam ñëpp ci ñu bokk bu lekk gi pare bu fekk ci kër gi mun ngaa dugal sa loxo te loolu bu nekkee te parce que jabaram aussi dafa baax bu gàmmu jotee alsaan day indi ginaar yu bëri tiwaawam jabaram indi ndox indi boisson daaw sax da boole ay fruit keesu pomme keesu banaan keesu euh, clémentine keesu poire mais li tax Alsaan bi dégg loolu Alsaan dafa nekkoon nag maamam maamam jox bi maamam di génn àdduna Alsaan il n'avait que dix-neuf ans Pape am onze ans Didi am neuf ans huit ans mais il les a gérés du leen dóor du leen saaga du leen xas yàlla jàppale ko ba tey jii mu tekki di jëriñ baayam di ko jàppale di uuf ay rakam su ma ay rakam nag waxuma rek parfait rek bii ñëpp laa wax samay doom ñu ñu bokkal bàyyi lu nekk nga defal samay doom xale bu am jom la te muñ na lu nekk ku mel ni Ndiaye wala Ousmane xam nañ ci dara mais boo xamee ay bàjjanam boo xamee bàjjanam ndey maama xam bàjjanam ci ndege xam bàjjanam ndey ak xam ay bàyyi mënul di jiitu li nga xam ne loolu tax ko xool ba ko fekk gën ku am jom la ku baax la dañ koy ñaanal rek asam ba nga yéene ko teraanga yéene ko gudd fan tellement il est correct il est vraiment correct il y a quelques mois dañoo am tour de famille à Dakar xale yëpp ñëw toute la famille était là alors euh, maa ngi nuyu kenn ku wax rek xalel bi sama yaay lañ ko tudd muy xam ne këram sama ñëpp mu nekkoon soxna su jom ci boppam koy téye am si kooku la alsaan tudd su doo woo su doo ko tudd nag il y a deux semaines auparavant tey dañuy féddali rek di gërëm ñëpp di sant ñëpp alsaan nag doom la doom dañu naan kenn du ko dañ koy yar parce que yar nañ ko ni ko war a yare moo waral tey jii mu mel ni mu mel không mới được di di đi đi đi cô nhà rồi một xong giờ là sahal yok sen mình mình yok sen mình je pense que loolu đi li am solo maa ngi đi di sant du ma fàtte aussi rek soxnaam muy Ndeye Ndiaye wax dëgg yàlla Ndeye Ndiaye ku baax ndax bu mu sëy sëy fii ba nëgë ni wàññiwul dara dafa yokk

fonk na ay responsabilité kon dama leen di ñaanal rek yàlla may leen gudd fan hmm? seen mën-mën yokk liir bi tamit ma koy ñaanal yàlla na gudd fan yàlla na si turandoom eh, ay fan mu nekk mat mu am ñam comme maamam mat mu am diine comme rasul moom turandoom ku farlu woon bu tuwaawoon jotee da ci son xanaa mu tële mais moom ku fonkoon diine Mind Thank you, Ravi. Okay. Qual é